waaw ara maa ngi lay ziar di la bëggee man la Alioune Seye numéro 2 waaw doomu Gunaas doomu Géejawaay waaw maa ngi bëggee gars yëpp di bëggee Géejawaay Info TV ñu ngi leen di ziar wéer a wéer uh-huh. uh-huh. waaw sant yàlla rek di am confiance bu baax à cent pour cent nag à 100 pour cent xam nga nekk ci wàccaay gi rek di ñaanal sunu doom nday Balla ni numéro 2 yàlla defal ko ndam lu guy wax dëgg yàlla état bi ñu ko gisee nii kontaan nañ ci vraiment ku ko xool xam na liggéey na du ko ñaanal yàlla defal ko ndam lu ci barke Seydina Mohamed mhm. waaw Balla Gaye moom ku ko xool xam ne moom mooy confiance Balla Gaye musul ñëw ci combat sax xam nga ba gars yi di jiixi jaaxe naan ay eh, c'est-à-dire fii la xari jaar moom à chaque fois bu ñëw ci làmb confiance lay indi à 100 pour cent ba yàlla li muy def mu xam ne loolu la yàlla dogal mais moom confiance moom Balla Gaye mooy confiance soo bëggee dégg-dëgg. waaw excès de confiance mënu ci am ndax moom xam ne bis bi lu mu ko jaral tey moom xam ne bis bi lu mu ko jaral su daanee xam ne fu mu ko yóbbu su daanoo xam ne fu mu ko yóbbu moo tax gisuma ne war na ci mën a naagu ba ciy def erreur ak ak lu mu am confiance am confiance Balla Gaye toll foo xamante ni newatul mbër mu ndaw lu am confiance confiance bi dina ko gardel boppam def l'essentiel bi koy may ndam loolu la ci loolu la ci yakar quoi. waaw no xam nga lam mom dafa dafa ni ñu koy waxati dafa graw ku nek ak CPS ngay tek mo lo mën nga ko gis muy ñafo chaque jour muy sada di dor di dor fekk na sax narul sax yëkëti goos da na ra ñew song lool mom ci lam la baxo mën na ñew tabi indi xex mais nak ak li ci di am rek ñun paré nañ ko te yëpp muy xeex beeg muy bëri yëpp lu mu baax rek ñu ngeer ko ci carton yàlla waaw xam nga comme comme ni ko Tyson di waxee rek bu làmb taxawee moom expert yi day bëri entraîneur yi day bëri ku nekk sa xalaat ngay joxe mais loo xam xam xam xam xam mënoo xam nuñ koy wax ni lu gumba mënoo neex neexu xel ba ba mën a firi gunt géntu muuma Balla mu préparé moom la concerné te mu ngi ci xeyna na ku nek mën nga wax sa abi wax na ni ak ni ak ni lay demé mais balagay mom moom lu ko war mu ngi koy def ci katan yalla mën na jexé ci kaw mën na jexé ci katapi wa di santaat yalla rek di len jajeufal bu baax yéen waa Géejawaay yéen moom xam nga seen daanu ñun ñoo bok ndey ñoo bok baay di len ñaanal sen xam nga site bi dem ba nek ay télé télé télé télé ci barke sayyidna xam ne di wa waa way rek ñu mobiliser wu wote fair play wote ci jamm dem ci jamm beure ci jamm dan ci jamm ci barke sayyidna Mohamed loolu daal waa waaw ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay bëggee